lolu mo yak lepp ba ci troisième candidature bi bari na ñuy wax lolu tay ji waye yalla xam na ni bu amulon Ousmane Sonko ak Pastef ak fiñu jarang jaar ak Macky Sall ba neewal ko doole tey gisuma senegal lan moko mënon téré tere foncer vers sa troisième candidature lolu lepp ñep xam nañ ko waxuma parce que dañoo reuy wala dañoo bëgg revendiquer mais gis nañ ne nena ngi ni dara newu ci lolu nak Macky Sall duñu ko mësa a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 bi dafa dem ba Macky Sall da ko transposé sama njaboot man sama doom barki dem da doon def baccalauréat yàlla def na amut ñu ciy sant yàlla du ma ne lii moo ko tere am de waaye bokk na ci li ko la ndax xale bu toll ci war a def examen ñu tëj sa kër boo waree génn dañ lay fuye fuye sa oto toog na lu mat ay fani fani fan ci fekk baccalauréat bi jege na ñu tëj fii bañ ne kenn du génn ci sama kër ba mënul dem jàngi su dul woon waa école am ñu jóg bloqué cours yi ne tant que Souhaïbou bu sunk ñëwul jàng si duñ ko duñu duñu bàyyi mbir mi peut-être duñ ko doon bàyyi mu dem préparer examen fitna googu nga teg ko ab xale buy def examen ci jamono jooju moom ana njabootam ndax Amadou Sall dafa gën sama doom man ma ngay yéeg avion di jàdd fii di dem fële di dugg ci banlieue bi naan day dem recruter ay nervi lu ko neex mu ngi koy def ci réew mi est-ce que moom dafa gën sama doom te lépp nag ci alal réew mi lañ koy defee jamono jooju ana soxnaam mu ngi dox ay soxlaam man ñu bëgg ma koo tere sama famille démb ñeenti fan mi ngi ni amuñu wifi ci kër gi démb waa Free ñu woo leen ñu ñëw ñu téye leen fële commissaire bi ne duñu dugg ci sama kër pour ñëw def réseau bi daloon nañu keroog ci plombier bi dal nañu ci maçon dal nañu ci ku ñeen du ñu dugg ci kër gi pour ñëw réparer ngeen jàpp ni loolu jaadu na bu ñëw ñu wootee ñu ne leen dem leen comme bañ leen ngeen dugg ñu ne ñu vérifier leen lii vérifier li bi ñu vérifier dañoo dem ba ci biti gis ni ndekete fil bi câble bi dañ koo dagg ak ak si wala paaka mu nga loolu sabotage pression boobu ak fit boobu nga teg ko sama famille loolu su dul en lan la doon ko xamne buñu tuddé ñu turu Ousmane Sonko sa kanam sax ngay bëgg waccu waye gis nga en du lorté nga ayir fo gis kuy dundu en rek mom la en nga di lor mom lay détruire ñun ñi ngi sant yàlla ñaareelu sentiment bo xamne Macky Sall nga koy dundu té mu nara andil Sénégal jafé jafé yu reuy moy li di wax orgueil moy reuy dem ba xamni mbir mi jeex na waaye ñëg jàpp la nga jàpp ni boo tegee mbir yi ci suuf doxal jàmm dalal réew mi day mel ni dañ dangaa faible ci kanamu nit ñi moom noonu la ko jàppee rëy muy ñaareel bi ñetteel bi mooy ragal ragal lan mooy xew gannaaw bu jógee fii te li ko andi yépp mooy ni mu ñor yore réew mi ci fukki fan ak eh, fukki at ak ñaar yi weesu ñu jox lam réew ne la doxalal yoon doxalal dëgg nga jël ànd ceeg coxar goo xam ne ñépp seede nañ ko di fitnaal Sénégalais yi di dal ci kaw senegal yi di gaañ Sénégalais yi di tëj senegal yi ku ne ànduma ak yow nga faagaagal te fàtte ni nguur dafa am bakkan te yàllaa koy joxe tey war ngaa jóge ci nguur gi nelawatoo lekkatoo jàpp ni mun nga imposer Sénégalais kan moo la war a remplacer lii lépp mënoon na ko moytu waaye ànd ak lii lépp nag nun dañoo waxoon ni lu may wax keroog ci France 24 dafa ne ñun mën nañoo baale te baale nañu lépp loo lu waay def teg ko si teg ko si suñu kaw ñun personnellement baale nañ ko ndax noonu dañoo am roy ay royukaay te bi ci jiitu te am solo mooy yonent bi nga xam ne moom lañu gëm ñun nit def na ko lu ne nit fay na nit pour ñu rey najaayam di Hamza xotti dënn bi génne xëtër bi jox ko ko mu mu koy yëy nii moom mu teg ci bëtam loolu lan moo ko gën a métti te keroog bi mu gañee ba ubbi Màkka dafa ne baal naa kooku ak jabaram bu Sufyaan ak Hindi baal naa leen waaye yemuma ci baal leen sax waaye ku dugg seen kër sax làqu fa jéggal nañ la parce dafa am fu nit di toll ci histoire da ngay def preuve bu dépassement bu xeex jotee ñu bëgg ñoo faagaagal kenn dàq ñoo xeex waaye bu ñu yàlla dénkoon réew mi Sénégalais yi am na leneen lu ñuy xaar ci ñun lu dul ay fayante mooy naka la ñuy def ba seeni problème yi ñuy dund ci paj mi ci xëyu ndaw ñi ci ci ci ci euh, coono jigéen ñi ci euh, njàng mi ci tali yi ci courant bi ci dund gu seer gi ci xale yi jël gaal di dem naka la ñuy def ba ut ay pexe ci loolu loolu la Sénégalais yi di xaar ci ku ñu fal erreur yi mu def moom ñun duñ ko def mooy ñu fal la bi nga toogee premier mandat salaamaaleykum waaleykum salaam yaa ngi xalaat troisième mandat ba tax nga ne ku yëngatu rek ma faagaagal ñun du ñu def erreur yooyu kon baale nañu bu ko neexee mu gëm bu ko neexee mu bañ a gëm ndax ñoom li ñuy def ñoom seeni politiciens classiques yooyu di naxanteeg ñu naan naxal ba jekku bu ko defee nga def li les la les promesses d'engagement que ceux qui qui croient ñun du ñu xeetu nit kooku ñun jombale nañ suñu bopp wax loo xam ne Sénégal yëpp dégg nañu àdduna yëpp dégg nañu ñu ñëwaat di def safaan wax amul lu ko jar ci àdduna waaye baale googu dañ ko tënkoon ci àpp mooy ki ngay baal ci kaw mu tuub ci kaw mu tuub te bokk na ci charte tuub gannaaw boo rëccoo li nga def nga rëcc ko bokk na ci ay charte tuub mooy nga bàyyi ko bés bi bi nga ko tuubee nga bàyyi ko définitivement waaye bu dee moom dafa fas yéene juróom-ñaari weer yi ko desee ci réew mi mu ne lii kàttanam yépp da koy jël pour faagagal Ousmane Sonko essayé xool nu mu koy dugalee kaso essayé xool nu mu koy tere nekk candidat wallahi maa ngi koy waat fii ma toog nii ci àjjuma ji lañu ñu dese ci dund ñun du mbirum benn fan du mbirum une du mbirum cinq lañu la dese ci dund dinañ ko jëriñoo dinañ ko jëfandikoo ñun ak ñi ànd ak ñun ñépp nag ba teg ko lu toll ni lim ñu teg wala lu ko raw parce que yaram benn la foo domp mu métti dañuy wax ni nit balaa ngay xam lu jaadoog lu jaaduwul laajal sa bopp benn laaj mooy lii ma bëgg teg kële est-ce que suñ ma ko tegoon dina neex ci man tant nit yeggoo foofu rek lu la neex defal te foofu la Macky Sall nekkoon malheureusement onze ans yi weesu jàpp na ni moom ak njabootam ñoo gën luy dund ci senegal mun na teg nit ñi lu ko neex ba pare moom mu nekk ci mun naa daatam loolu mënul nekk géej naa ko fi ma toll nii bu deltuwul gannaaw xam ni li bëgg munut ne man mënumaa faagaagal ndax man sama carrière politique c'est intact réewum Sénégal kenn mënul wax ëllëgu réewum Sénégal te te génn ci Ousmane Sonko ak Pastef loolu mënul ne moom nag carrière politique am weesu na ab page bu ñu tourné la kon na delloo si xelam noonu ma ko waxee ci moom laa koy waxee ci ñeneen ak ñeneen te dinaa ci ñëw dama leen ne Macky Sall bàyyiwul liy firnde ni bàyyiwul gis ngeen nomination yi mu def barki démb ci magistrature bi Cissé Fall Cissé Fall mi nga xam ne moo dem cour d'appel ñu sas ko moom ne ko fexeel ba condamné Ousmane Sonko lu ëpp ñetti weer mu dem bind ay fen yu leer nan ñi ngeen jéggal ma ci kàddu gi ci décision bi dem ba ne samay avocat ña nga woon ca saal ba Juan Branco mi nga xam ne mu nga Paris nee ma nga woon ca saal ba ak yeneen ak yeneen jël na ko léegi moom la yóbbu def ko président tribunal grande instance de Dakar am na lu muy waajal ci fan yi ma teel leen ko yëgal nag am na lu ñuy waajal te gëm naa ni bu ñu paree examen xale yi ci loolu la jublu Ousmane Gueye mi nga xam ne moom lañ demoon jëli ci cabinet Victorine Ndeye faxas ko andi ko mu mottali Cissé Fall pour ñu mun a am majorité moom la ñu def léegi secretaire général cour d'appel non seulement ay récompense la ba ci ndaw si sant ndaw mi nga xam ne beneen procès bi moom la ñu boole woon ak euh, Issa Ndiaye nga xam ne moom lañ ko booleel pour am majorité ñoom it moom it defal nañ ko promotion yóbbu cour d'appel ak ñu yóbbu cour de cassation pour préparer lii ñëw waaye dama leen yàgg wax lenn problème mu Ousmane Sonko du problème mu justice néew ma gëmuma magistrat Sénégal de am na ci ñu baax am na ci ñu jub am na ci ñu def seen liggéey te gëm naa ni bëri nañu lool waaye am na ci ñoo xam ne c'est des corrompus ndax corruption dafa bëri forme dem jël la jox la ay responsabilités. ne la defal li ñu la promotion loolu corruption la ak yeneen yoo xam ne làqu na ci ne ci bañ sori sénégalais xam nañ procureur yi moom suñu appliqué woon yoon ci justice bi suñu problème du fajoo justice wax naa leen ni fi mu toll je suis éligible mooy fi mu ni man candidat ndax premier dossier bi donte corrompre nañu ay juge ba ñu wax li ñu wax samay avocat nee nañ dañuy dem cour de cassation ma bàyyi la def seen liggéey def nañu seen mémoire boo xam ne cent vingt huit pages wala cent trente bañ ko def pare dama jël ay samay naataango yoo xam ne ay magistrat lañ mën leen xool leen bañ ko xoolee pare dañ ne gisuñu fan la cour de cassation mën a jaar ba du kase li ndax ay vices de procédure yi ci nekk waxuma la sax leneen lu ñuy tudd waaye yéen xam ngeen li xew ci justice pour de cassation bi ñu commencé ñoom ba léegi da ngay am dossier béton ba ñëpp ne dossier bi gisuñu fu ñuy jaar seen yoon newu ci bu Macky Sall jaar ak ñoom fi muy jaar ak ñoom ñu ñëw wax lu leen neex waaye candidat laa ci dossier boobu ba tey ndax dossier bi jeexagul boo demee ci premier dossier bi booboo gën a neexati ndax nee nañ dañoo condamné par contumace konti nag mooy saa su ma joge man ne len ma ngi ni jugement bobu anéantir na jeexna ñom bu ñewon jël si ma tey jugement bobu anéantir na waaye nak liñuy wajal dama bëgg ñun ñu préparer ko motax ma wax ak yeen ci anam googu dara wa ñoo bett bu dee Macky Sall démb ak barki dem bi nga xamné mo yoron nguur gi té ko ci loxom lañu mënaluloon dara du Macky Sall tay nga xamné ayam jeex na fi mu bokk ci ci boppam sax muy ñi mu ànd ak mënatul am kilifteef ci ñoom du Macky Sall boobu moo ñuy mën a xoqatal ñun waaye nañu fagaru rek waajal moo tax nag ma bëgg leen teela artu ne leen wala ma teel leen sensibiliser yéen ne leen am na nag piège yoo xam ñu ngi ciy tàbbal te ñu ngi seetaan loolu mooy yan piège ñu bëri ci Sénégalais yi dañ naan tànk jàppuñu usmaan Sonko yóbbu kaso garaawul jarut a xeex mais Sonko mi ngi ci kaso ci lu tegul ci yoon weer ak genn wàll gi nii loolu tuutiwul de depuis le vingt huit mais ba tey le quatorze juillet weer ak genn wàll. ci coobare Macky Sall moom dong nee na Ousmane Sonko du génn du dem doxi soxlaam du dem nemmeeku Sénégalais yi du dem siège dajale ay nitam du def investiture ci coobare Macky Sall moom dong nee na Ousmane Sonko maire de Ziguinchor la waaye du dem Ziguinchor def liggéeyam ba tey jii damay obligé dagg bi avion samay collaborateur jël avion ñëw Ndakaaru joxe dossier yi fële ñu andil ma ko. moo mën a signé ñu génnewaat laat seen avion dem Ziguinchor ci coobare Macky Sall moom dong dong dong waa lii sudul kaso lan mooy kaso mu am nag sénégalais yu jàpp ni defe naa loolu lu normal la loolu ba kañ lay durer est-ce que dañ ko war a nangu parce que nag benn ci suñuy problème ñun mooy depuis bi ñu commencé jàmmarloog Macky Sall ba léegi dañoo nekk ci position défensive mooy dañuy toog ba Macky Sall songuñu ñu ne jàpp na Ousmane wala de jël nañ décision justice bi ñu il faut léegi ñu nekk ci position offensive il faut que mentalité yi il faut que ñu xam ni buñ ñuy teg yenn yi ñu koy jox ay ba kañ Ousmane Sonko nit la di citoyen de famille des mères, di chef de parti di candidat à une élection présidentielle kon loolu premier piège bi bu dee dañuy toog rek naan dañuy xaar ba ñu jàpp ko mën nañ ne duñ ko jàpp waaye nañ ko tëj ci beneen façon ba kañ piège bi nga xam il faut ñu génn ci moy ñu bari dañ nan société Sénégal wax ji benn la Sonko day nek candidat ñen ñi japp nañ ni tank néw néew ñu Sonko du candidat waru ñu yëngatu loolu conseil constitutionnel rek moo ko wax te janvier la koy wax janvier la koy wax kon est-ce que dañuy top fii ak janvier 17 seetaan ñoom ñu ñu continuer seeni pexe fi mu ne nii ña nga ci seeni pexe diggante Antoine Diom ak Ismaël Madior Fall ak seeni procureur pour jaar ci ay yone yo xamné kenn du ko yëg pour génne sama tour ci liste électorale est-ce que xam ngeen loolu. te xeex bi tey lañ koy xeex te nañ ko ñeme benn yoon parce que nag li ñu daj ba egsi fii suñu toogee nag di sàggan ba bàyyi ma kesal mu def lu ko neex nañu xam ni war nañu suñu bopp war nañu réew mi war nañu àdduna bi waaye wor nañu surtout Sénégal yi nga xam ne gëmoon nañu projet bi ba dem xeex ba ñu faat leen ci ñii gaañ nañu ci gaañ metti ñii ñu nga ca kaso ba dama ne ci amu amul luñ fi wara a ragal te garal na len garantir na len ni fi amu lu fi nit di ragal ndax xex biñu mujjé xex metti woon na trop de digënté le 1er ba le 5 juin waye ndam giñ ci am mo andi li lepp est-ce xam ngeen ni seen xex bob mo xam moo tax Macky Sall génn ci 3e candidature xam ngeen ko est-ce xam ngeen loolu kon xeex gi neenut dañ ko war a mottali rek est-ce que xam ngeen ni xeex googu ñu xeex moo tax tey milice dootu leen ko gis senegal ay nervi yuy génn yekk ci ay pick-up di tiire dootu leen ko gis ñoom ñëpp daw nañ ñi ñi nga Gambie ñi nga Guinée Bissau am na ci ñoo xam ne jokkoo nañoo ak ñun enregistrement yi ñu ngi ko téye wax nañu mbir mi yëpp nu mu doxee fan lañ ko préparé ñan ñoo sumb mbir mi parce que dañ leen laaj ne leen delloo leen seen arme ñu ne delloowuñ suñu arme parce que lii mooy suñu sécurité daal di daw génn ci réew mi am na kenn kuñ ci jàppoon waaye bi ci journaliste Pape Alé Niang junjee ci ëllëg sa la ñu xëy bàyyi ko kon milice dootu fi am alkaati yi di police di gendarmerie doore ko ci Moussa Fall ak Bokar Yàgg ba ci suuf kenn dootu ci fi am sañ-sañu fii Sénégal joxe ordre alkaati yi ne leen dem leen tiire ci Sénégal yi dañ def sen nak maintien de l'ordre waaye niñ ko doon defé ak ëppal di dóor nit ñi di tiire ci nit ñi di torturer nit ñi lool jeex na Sénégal lan moko andi xex biñu xex kérok waye est yemuñu fofu moy top, giñ ko top ba tay dem nañu déposer pays tay dem nañu déposer France barki dem rek Juan Branco mu ma wo yonne ma ay document juge d'instruction premier cabinet tribunal de grande instance Paris moo ko jox né jot na suñu plainte né ñu nak motali leen ma telle information la soxla ak telle information pour ñu mëna commencer instruction bi yoy nono xex biñu xex xeex le premier ak le 5 ak niñu ñu dossier bi fa ñu war dem tek suñu tànk yëpp ñu tek ko ba communauté internationale bi yëpp réclamer ko mom ay compte presse étrangère bi yépp def ci ay reportage ba wone ni mom mo yor ay nerve ñu jaxaso police lool mo andi li kon gàcce gàllama yéen gàcce gàllama yeen wane nge ni fa suñuy mam ne ñom la jor ñom Aline Sitoé ñom Albouri ñom Cheikh Amadou Bamba ñom El malik ñom mam Mame Baye Niass ñom mam li Laye lay ñu ne ci taxaw ak résister fa suñu jigen ñi ne jigéenu ndeer waalo waalo yi wane ngeen ni loolu mu ngi suñu deret ñun jógewu fi wane ngeen ni politiciens yi li ñu bëggoon gëmloo nit ñi ni Sénégal yi gëmul dara Sénégal yi ñemewul lu métti loolu surtout yéen jeunesse wane ngeen ni loolu newu fi moo tax énergie boobu warul jaas énergie boobu la ñu yaakaare ni à partir de deux mille vingt trois à partir de mille vingt quatre énergie boobu la ñuy transformé ci mu doon énergie biy tabax réew mi dootul doon énergie buy génn di xeex de waaye énergie buy tabax réew mi la dans un engagement patriotique et citoyen est-ce que nañ nangu loolu ñu yàqal ñu ko kon bu leen déglu ñi nga xam ne dañoo bokk ci système bi seen ceeb di tooy ñi naan jàmm nii jàmm nele jàmm dañ koy liggéey dañ koy dox te dañ koy liggéey dañ koy doxee mooy ki yor yatam di dóore ki nga xam ne mooy tooñ ngeen jàpp loxoom ne ko sëñ bi arrêté la ku ko ñemewul wax nag bëgg ñoo joxoñ ñun duñ ko nangu kon nañu gën a takk suñu ndigg te xam ni Macky Sall bàyyeegul nañu jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom yeggali liggéey bi ma wax ni tere nañu événement yi naam ñu bari ñi xaar ñu génn xeex di ngeen am gàcce danañu xeex de waaye bii moom li ma ñaan waa parti bi ñaan ko sympathisant yi ñaan ko képp kuy sénégalais boo xam ne bëgg nga démocratie bëgg nga dëgg sax ci réew mi bañ nga tooñ ak jaay doole li ma leen ñaan mooy nañu teggi suñu tànk cérémonie investiture am nañu tout notre temps pour def ko te bu soobee yàlla nañ ko def de waaye li ñu bëgg woon Sénégal yëpp mooy fitna gi toujours ci benn côté lay jóge suñ ko topon suba fitna am ci réew mi ndax li ron touru ci dakaru fi ak li nga xamne ci dakaru lañu ni di kenn attanu ko te mën nañ ko maintenir genn xex ak ñoom waye ñaan na sénégalais nañu bayyi di jàpp date pour def suñu investiture ni ko candidat yëpp di parce que du Macky Sall mom mo nan Ousmane Sonko candidat la wala du candidat dinañu matal suñu dossier yépp def suñu parrainage yépp ba dem déposer conseil constitutionnel ba xam nag conseil constitutionnel dina ne candidat la ñoom duñu candidat kon am nañu droit def suñu investiture te dinañ ko def waaye pour journée suba bi muy samedi 15 juillet dinañ ko tëbal ba beneen taxul ñu bàyyi nag may ñaan sénégalais yépp nag dama leen ko ñaan mag ak ndaw goor ak jigen ak ku munti don ci senegal mag leni ñaan nañ ko remplacer li ma wax ni mu don message Pas xamne senegalais bu bëgg jamm rek nako def parce que nak li ñuy def ni dañuy dankafu dañuy anticiper ngir bañ rek sa rew mi dem ci fitna té loolu warna don yitté sénégalais bu né ma bëgg nak sénégalais bu né lii may ñaan na ko sénégalais bu ne def muy message boo xam ne dañ koy yónnee Macky sal sénégalais yi ne ko d'accorduñu ak ni ngay def d'accorduñu ak lii ngay ruumanaat waaye d'accorduñu ak jooy jaay doole bii nga nekkee ñu ne woon dañuy génn manifester am na sénégalais boo xam ne mënu koo def waaye li may wax ñëpp mën nañ koo def ba ci njëkk mooy ëllëg samedi ci guddi ñaan naa sénégalais bu ne ñu def li ñuy wax concert de casserole def nañ ko defaat ko waaye dama bëgg bii nii li ñu mës a def yépp réussite la alhamdulilah macha allah waaye dama bëgg bii bu dee yële fukk lañ ci amoon bii dama bëgg am ci juróom fukk dama bëgguñu ñu ful ko ba àdduna yépp parce que buñ ko defee àdduna yépp da dafa tiim Sénégal fi mu toll nii télévision tubaab bi dinañ ko wone télévision arabe bi dinañ ko wone télévision asiatique nañ ko wone fii senegal ñëpp dinañ ko couvrir mu doon message bu am doole boo xam ne message pacifique la grenade tàkkul xeer sànniwuñu ko waaye message bu rëy lañuy ñuy pour Sénégal yëpp wax ni Macky Sall lenn rek lañ la ñaan deseluñu la dara jox nañ la ñaari mandat def nga fi lu ne ñu baal la dañoo bëgg nga dem ci jàmm bàyyi réew mi ci jàmm dañu bëgg nga bañ fay yé ay fitna dañu bëgg jaay doole gi jeex dañu bëgg tànn candidat yi jeex ndax du yow ya ko wara a ñun sénégalais ñoko wara war a tànn sénégalais bu ne mën nako taxaw sa balcon wala sa terrasse wala sa buntu kër wala sa ëtt jël sa casserole jël sa ndam sa ndab daal di tëgg pendant 30 minutes diggante 20h30 ba 21h non lañu ñaan Sénégal yi kenn defalu ko Ousmane Sonko ñun suñu bop lañ koy defal message de paix la taxal la bo xamné ñu ngi koy envoyer Macky Sall ak ay ñonam pour wax leen ni jamm lañu bëgg bu leen fi yé fitna yow mi yor sa taxi wala sa camion wala sa car njaga njaay wala sa super yow mi yor sa jakarta mën nga def sa klaxon yow mi mën a sànni sa pétard sax sànni ko waaye àdduna bi yëpp dégg Sénégal ni sénégalais yi jàmm lañu woo jàmm lañu woo Macky Sall jàmm lañu bëgg mu doxal te dañu bëgg mu bàyyi fitna bi mbirum concert casserole nag déggoon nañ fi lu ne may ñaan sénégalais yi ñu bañ a déglu waxkat yi nga xam ne euh, lu xew ñu jóg ndax daaw bu ñu fexee concert casserole nit ñi dañ ne suñu defee concert casserole day um nawet bi du baax defe naa nawetu daaw bi ci nawet yi gën a naat yi ñu mus a am la taw na sax ba nit ñi naan ëpp na kon nañu bàyyi superstition yi demee noonu lii moyen la rek boo xam ne moyen de communication te jàpp naa ni gëm na yeneen moyen ndax ba léegi moo gën ñu ne génn nañu ba xeex nañu ay nit gaañu nañ ci lii lan moo raw lii ci bëgg jàmm bàyyi nañu loo loo xam ne mënoon na jur fitna tey tey tey ñu remplacer ko loo xam ne mën na communiquer te du jur fitna ma ciy woo sénégalais yépp muy benn ñaareel bi ba journée demain bi samedi ñaan naa sénégalais yépp ku nekk na nga jël lenn loo xam ne lu xonq la moo xam ab morceau boo takk sa loxo la wala simis boo sol la wala mbaxane la wala tubéy ak lu nit mun a am rek mais na kenn ku nekk am lenn lu xonq luy màndargal ni li Macky Sall di def ando ci te jamm lañu bëgg ci réew ñettel bi moy ci parti bi journée suba bi na doon journée brassard de la liberté moy li ma tak ni nga xamné parti bi da ko lancé won muy safanu brassard électronique bi nga xamné ne électronique bi nga xamné ñu ngi koy expérimenter ci Pastef kese nag ndax dafa mel ni waa Pastef rek lañ koy takkal ci loo xam ne ci ay caaxaan la ñu ne ñun am nañu bracelet boo xam ne mooy bracelet liberté ñu defar ko Sénégal yi macha allah tabarakallah jib si parti bi fu nekk ñu koy laaj fi ne nii ay milliers milliers joxe nañ ko te kenn ku ne boo ci jëndee benn màndargal bu wane ni ànd nga ak nun ci projet waaye ñaar màndarga la buy wane ni jël nga sa contribution joxe ko parti bi pour dooleel parti bi mooy mille francs bi ngay joxe mu doon loo xam ne nag dafa mel ni général leen ñoom déranger nañ ne ndax soo seetee communiqué gouverneur yemul sax ci manifestation yi dem na ba suñu ndaw yi waa GPS nga xam ne ñu ngi def liggéey bu am solo dem dugg ci marché yi di placer bracelet yi commerçant yi di ko jënd chauffeur si di ko jënd ouvrier yi di ko jënd loolu lu muy ut ci communiqué gouverneur ba kon dama bëgg suba mu doon journée spéciale brassard nga xam ne bracelet du moins nga xam ne ci siège yi fépp ci siège parti bi ci marché yi ci gare routière yi na nit ñi dem dem jëli bracelet yi lii nag mooy pour journée ëllëg bi waaye ci fan yi di ñëw ndax duñu nangu Macky Sall tënkuñu ci li bëgg ci fani di ñëw ma ngi jël à témoin sénégalais. yi dinañu déposer autorisation de manifester ci 46 départements au Sénégal yi dinañ ko def diaspora bi dina ko def te bu boba nak avec ou sans autorisation dinañu manifester avec ou sans autorisation dinañu manifester parce que nak lu ëpp tuuru jàmm ñaar a koy dox lii mooy plan d'action bi te dinañ ko gën a leeral mais pour pour ëllëg wax nañ leen ni mu deme et des dinañ leen ko leeral ma ñëw nag ak yéen ci fi may tëjee mooy lancer appel woo Sénégalais yi waaye dama ciy cibler ay composante ba ca njëkk mooy moom mi di Macky Sall mu koy woo mu delloo ci xelam féexal xolam génne en gi mu jàpp ak rëy gi mu nekk ci moom ak coxor gi waaye ak tiitaange yi nga xam ne moom lay nooy yéesu suba ak ngoon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 kon nan mo wara tax ñu demaat déposer fofu jaruko ko dama bëgg ñu xamni à partir de février 2024 benen page moy mooy ko Sénégal ndax Macky Sall dina fi joggé te candidat am mënul am sax 15 fi ci Sénégal c'est une page tournée bu soobee yalla bu né nak dañoo wara dañoo nara continuer ñom ni ñu nekké ni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 kon lu fi jar yenn yi nit nak li olof di wax mën na and ak yow daan way duma and ak yow beureum bu len nangu and ak Macky Sall beureum fi mu bëgg jëmele jëmale mi bu len nangu mu boole len ci ñu ngi leen di di leen sant di leen jox rendez-vous fan yi sur le terrain Thank you.